مصطفى إذ جاء يمطار من تمر المدينة قل بعيره بتاعه المختار من كرم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi mbokku pas-pas yëpp man seen jaam seen taalibe seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe Chérif Ibrahima Aidara Atijani maay woo ñëpp di leen nuyu di leen ziyaara di wax ni jot na ndigalu suñu kilifa yi ñun ñëpp mu tàmbale ca Tiwaawan xalif général de Tijane Seydi Aboubacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam te wéral ko ak suñu sëriñ ñun ñëpp Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti mu wax ne bépp programme bu mu amoon moom Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Al Hadj Omar fomm na leen ba jëmmi jamono samay sëriñ nag luñ wax loolu laa wax luñ santaane maa nga ca biir can cantaane ga kon nag bépp programme boo xam ne may amoon naa ko ak képp koo xam ne doon naa la defal programme programme boobule fomm nañu ko ba jëmmi jamono te samay kilifa joxewaat ndigal programme bu mën a doon rek fomm nañu ko ba jëmmi jamono ba samay kilifa joxewaat ndigal fii may wax ak nag man maa ngi fii ci Espagne Madrid fi laa euh, yónnee wax ji Omar Diop mi nga xam ne moo yore Chérif Dabakh TV mook Abdou Aziz Seck ñoom ñi yor Cherif Dabakh TV ne nañ ma ko dugalal jàllaleel ma ko képp koo xam ne daan doo waroon naa la defal gàmmu wala ziyaara wala conférence ci weer wii ak weer wu mën a doon ajani nañ ko ci sama ndigali kilifa yi sama kilifa yi def noonu laa def ak li nga xam ne moom la nguur gi bëgg te nguur gi bëggul lu dul lu ñu bëgg suñu njëriñ lañ ñu bëggal li ma waxoon ci njëlbéen nañuy ñaan tey faju kuy faju nag ña lay faj lañ lay wax danga koy topp ñaan baax na faju baax na sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moo waxoon ne nañ boole ñaan ak faju ñi ñuy faj nag ñoo wax ne nañu bàyyeendi ndaje yi comme nag ñi ñuy faj ñoo ko wax suñuy kilifa it wax ko ñun ñëpp nañ maase nañ maase tënku ci ndigalu suñuy kilifa ndax nit dafay am kilifa nag ca dëgg-dëgg kon nag maa ngi ñaan ci orma ci njëkk ak ci teraanga képp koo xam ne rek man Chérif Ibrahima Aïdara At-Tidjani waroon naa la defal conférence walla gàmm walla ziyaara ajani naa ko ba jëmmi jamono ba yàlla jeexal lii ak jàmm ñu seet fan lañ koy defaat yii nag moom laa bëggoon jottali ñëpp ñu dégg ko rawati nag maam as jéey bi nga xam ne moom samedi bii di ñëw la woon ak daawuda jenn seen daayira yeeg ñoo ñëpp ci lañ mbokk fomm nañu yëpp fomm nañu yëpp fomm nañu yëpp bu mën a doon rek fomm nañ ko ba jëmmi jamono ba suñuy kilifa joxewaat ndigal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ala Muhammad